Bismillahirrahmanirrahim. billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim seigne fall borom keman ci kaddu gi tay ni bëgg wax waxtane ñaan yalla ki moy fall borom diko xarañ ci ñaan yalla set nak daf ci spécialiste waaw serigne fall neena lepp loy dugg wala lepp lo bëgg xam ci sa vie bo jokko ak mom dina la wax la leer nañ set mom li ñu jakar lool day day melni télé non non li ñu sété day melni télé nga xamné buñu jakar lool mom li wara gis lepp lañ ko gis képp koo xam ne daal boo ko gisee moom bu soob yàlla bu fekkee ne am na ñu daan seen bopp bu soob yàlla da nga leen di moom ndax seen moom ñoo ci nekk suñu tàkk lu demee ne wàllu ndoxum siti wala hémorroïde wala wàllu ngóora koo xam ne da nga néew kàttan moo xam noo mën a néewee kàttan wala koo xam ne sa sàkkara day dem bay dellu di gàtt boo woyee suñu fàllu borom kéemaan rek loolu moom bu soob yàlla day daal di saaroo ba ci wàllu càngat it yuñ ci liggéey képp koo xam ne Euh, yaa ngi yëngu te mënoo am dara dara dara dara boo woowee sëñ Fallou borom kéemaan bu soob yàlla dana la dimbali ba am dara yomb la. wàllu noo bi man li ma ci gën a garaaw ci wàllu noo mooy koo xam ne da ngay dem ba jàpp ne kii waru ko mën a takk wala lii warut mën a nekk man yooyu sax gën a soxla képp koo xam ne yaa ngi bëgg jigéen ak fu mu mën a nekk moo xam mi ngi ci réew mi moo xam mi ngi bitim réew moo xam nit ku xonq la moo xam nit ku weex la. bo woyé e mom buñ déggo rek bala mo am semaine bu soob yalla li nga bëgg da koy daldi am ndax yoy mom dañ ko jang ba xam ko xam go xamné mom da jaadul képp ko xamné da nga am jëkër bëgg mu lay jox ci jox na bu soob yalla bo ñu woyé da nañ fexé bam bam lay jox d'accord euh, sérigne fallu kéman fan la nek sérigne fallu kéman mi ngi touba buy bi wa ñu ci buy bi lañ bokk bo ñëwé ba wess ko nis da dara jël bala nga ak ci isin galas rek bo woté soob yalla da la jël ci ndax sama kër ak kaw tali bi soriwul léeg-léeg dana di nekk Dakar numéro bi 77 274 29 48 wala 78 632 01 64 wala 687 76 687 88 34 wala 640 58 88 waaw numéro yooyu moom bu soob yàlla bu ci nit wootee bu soob yàlla incha allah dana la jot.

yaa sant. alhamdulilah ndeke coow nañu ne. waaw waaw sant bu baax. mos a coow na. xam naa nag ñaar ñoo fi andi. bi ci jiitu moo sant si la. baax gërëm la encore une fois ci acte bi def. ndax taxawaay bi. mat na sëkk ci sama doom mm-hmm. ci nag noonu nga ko taxaw ci ñëpp ci euh, ku ci nekk lépp loo def ci lu baax rek war na la cee mm-hmm. kon merci beaucoup ci ak li def mm-hmm. beneen bi ci doole ko nag mu di danga dem ba bokk ci sama njaboot ba tax na lépp lu may jëlati ci sama njaboot bala nga koy def dinaa ci waxtaan ak yow ndax euh, bul fàtte euh, sama diggante yow dem na ba bu diggante docteur ak euh, malade wala diggante dëkkandoo ak dëkkandoo dama la def comme doom mm-hmm. kuréel nag dama bëggoon euh, dama ci amoon benn xalaat daal mooy dama ko bëgg yóbbu village bu ko defee su demee mu mën a sànni ci xàmb yi ndax euh, xel mi mën a dellu si waat daal mm-hmm. ndax xool naa ko bu baax a baax xam naa ni mm-hmm. fas gi ko maamam joxoon baax na ci torop moo taxat ma ne nag euh, naa ci ñu waxtaan ci yo yow. Mm-hmm. bu ko defee mën ko yóbbu village mu sànni ci xam defee ay fan rek mën a ko defee ñu mën a récupérer waa dëgg-dëgg nag. Euh, incha allah dëgg-dëgg. incha allah euh, papa dégg naa li bu baax maa ngi ci am mbégte bu baax a baax na ndax aada ak cosaan kenn du ko dàq. ren mm-hmm. ko fekk ren ko bàyyi. Mm-hmm. sant gi ma lay sant mooy bi nga gisee lu ko dal mm-hmm. nga daw jubal si hôpital yalla dogal na nak def na suñu kemte lay katal mm-hmm. ba gis nga suñu borom may ci ndam mm-hmm. alhamdullilah lañ wax alhamdullilah tey yalla moy fajj ñun dañuy jëm rek lool nak man na nek bu génné ah, xamna dina génné bu génné man ah, nga ko yobbu ci yi ngeen wax mu sangu toog yoyu ndax kat dañuy lamb euh, kuy lamb nak mën nga dajé fu nek ñaaral bi moy timit xamna naa li ma ci gëna amal yitté dal moy bu mu tardé ay rendez-vous parce que timit nit bu génné ñu jox ko ay tektal mu war ko def heure bi ngay ñëw da sàngam donc ñun ñi ko jox xam nañ ay inconvénients yi ci mën a am te bu ko tardé rek donc man nañu empêcher suñu liguey empêchement boobu laay bañ mm. léegi daal li ma lay wax mooy euh, fu mu mën di nekk ba rendez-vous jot na dagg ñëw parce que c' est normal c' est normal mu ñëw euh, xam naa la ma joxoon ndogal nag daf ma ci dal hmm? wallaay hmm. euh, man ak naaraa toog nan hmm. bi ñu jógee foofu wax li ma lépp man ak naaraa bi ñu toogee ma dem ba kay suur far yàlla eh, ñu woo ma téléphone ni ma dañu am malade hôpital urgent hmm? noonu laa jóge jël affaire bi def ko sama poos ni naaraamaa maa ñëw njaxas bi moo soloon hmm. eh, ma ñëw summeeku nekk ci malade bi bi mu ñëwee bi ma noppee solu làmb gisuma wër naa ko ba sonn papa hmm. gisuma ko bi ni ma fa ma tegoon Hmm, jaaxal na ma trop ma bëgg nag boo demee ñu bàyyi fekkee hmm. na ma na ma ci parce que tegtal yi ma joxoon hmm. amoon na solo lool. ah docteur xam naa nag euh, ni ko euh, bàyyi fekkee waxoon muy bari na ay gàllankoor loolu lépp dafa bokk ci gàllankoor yi am. waaye comme maa ngi dem village incha allah su demee dinaa wax sama mu dolliwaat la ci. delluwaat la sax yeneen ndax xam nga yow macha bo boo ko léegi ci te comme da nga bokk ci njaboot bi ni ñuy toppatoo suñu doom noonu la ñuy toppatoo incha allah ba tax na incha allah su ma demee dinaa sama bu baax a xam na nag boo gisee sax ma gën ci ñëw dama bëgg comme rendez boobu nga wax ma fexe ba balaa rendez-vous bay ma mën a village ñëw incha allah ndax xam nga comme ni nga ko waxee nag respecté daf ci solo yow xam nga incha allah merci kon xam na ko la. waaw jërëjëf kontaan naa. dama kii sax kon xam naa dama wut sëfoor nga aar ma sa oto ah. bi. ko defee mën ko yóbbu. mën na nekk mën na nekk. voilà loolu amul benn xam naa noonu incha allah bu amee eh, perle. métti hmm. ko amul benn merci beaucoup ngi ci maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah ah man soo gaaw rek dinaa ñàkk doom daal dafa am sama doom joo xam ne jaan daal ko sonal lool lool lool lool ci këram sonalaale waa koñ ba kër ku fa ñëw ku fa gane see jaan ji daal bàyyiwul kenn sonal na ko lool ma daal ñoo nga xoolal ma lu dal la mo don sama yitte mo don sama tank suma sañon dal nga dimbali ma ci mo ma sa dimbalé rek bu tay bii ma ci gëna ñor jaan ji bëgg mu sori sama doom ci waaw. jaan jaa ngi ci koñ ga wala matu fa kenn. mom kay lu lay def ku mat sa da ngay nelaw rek ku mat da ngay nelaw mu ngi kër ga mu nga ca fépp rek. sa doom ji nu tuddu Mara. wax nga ci koñ bi mhm. jaan ji mara la fa gëna jégué jege kay mom la ci gëna sonal ko ngir lol ko wala ngir yakal ko hmm? su fekkon da ko jégué ngir lol ko ngir yakal kon kon nga ni fekk na kenn waxatu ko hmm. fi nga xamne fi la jaan ji nekk ak fi Mara nekk sorewuñ benn yoon. dëgg bëgg mu mu muy wéy di gis jaan ji. ah sëñ kay wala da bëgg jaan ji jóge fa. damaa bëgg kay mu jóge fa mu sori sama doom ji daal laa bëgg ndax moom daanaka yi sax gëmu ko docteur la hôpital lay liggéey. ah ñoom day tubaab yi ñuul lañ. waaw waaye daal su ma sañoon mu sori ko ndax man daal jaan daal moom. ca àll balaa ko xamee waaye du ci kër ñaan moom ca àll balaa ko loo ma mën a dimbalee rek daa nga dimbalee ma ko sëñ bi ba mu dëgër soo demee ci kër ga nii ma la ko waxe na nga fexe maara defe ko noonu hmm. loo ci mën a fexe bam def ko ni malako la waxe jaan ji dana joge jógee te dootu ko teg bët alhamdulilah na ci wis keur gi bam toy xib wis ci keur gi bam toy xib mus nan ci mu nan ci sangu ci sangu ci bax na mu sobe yàlla soko defé ni malako waxe su fekke jaan ji dafa dekkone ak mom bisu kerek la fay genn bu fekke jaan ji musta dugg ci këram dootu fa dugg. alhamdulilah. weexal gi nag juróom-ñaari bakkan la foo ko ren di teg sama gaañ ñi dinañ ko jël si. man jaral Papis. est-ce que leen nag. waaw. man nee naa bëgg sa bopp ak sañ si moom. waaw. <laughs> Euh, bu doon trophée man mi daay laay takk sa baat. lu wér nga wax. baax nga man dama laa bëgg. maa la foofu. dinaa la man bëgg sama bëggee gi ci yow. Mm-hmm. bu doon wurus. Mm. ma ne ca géej gi ngalam laa xuus. kontaan naa encore. même sama laaxu ci fay. Mm-hmm. manam xeeb naa ko hmm. batu lay jël diko ci wëndeel ya ji ba am amul barke yonte bi tax ma bëgg la gisolo wallahi dañu mëna def nak hmm hmm réccu mo do mo doon amé ma sha allah ma sha allah di la ñaanal wér ak guddu fan rek hmm xéewal yu bari amin amiin man dafa am na ma doon bëgg a laaj rek toujours dama koy fàtte est-ce que yow ya seeti nga kura kura waaw waaw kura nag dem hmm. naa fa dem naa fa deux fois Mm-hmm. mais yalla may mo chance pour ma gis ko mais à part par la suite ni ma dégg ci ay information gars yi neen ma tane bu baax a baax mm-hmm. mais yaay leen rek moom ci xaw a kura mm-hmm. dafa tane dafa mel dafa dese beneen feebar ci boppam maanaam moom day waxtu rek looy wax ni xamul jàjj ak joor ràññiwul loxo càmmoñam bi ak loxo ndeyjooram bi maam daal foo ko fekk day waxtu soo ko waxee guy gi mu ne Dakar ga man loolu man problème la ma def quoi. ah loolu kay doy na problème. Mhm. ah man de kure jaanam ji mi ngi may bëgg a jaaxal. Mhm. kon de jaan ji la mattoon xanaa dama yaakaar ni mu matt ndax yow sa jaan balay jant di so wàcc la ma nga ànd ak sa xel. Mhm. te kure moom boobu ba tey xelam mi ngi des. est-ce que kon Coura moom jaanam jaani kese la. loolu nag mën naa bàyyi xel ndax man jaan bu njëkkoon dafa am dëkkuwaayu boppam te jaan bu njëkkoon ci àll bi rek nga ko daan fekk. dëgg la mais ci réewi taax. Ah, te jaan nag dëgg-dëgg bu la daan mat suñ ko yóbboo ci sëriñ mu lugg mu wàcc. dëgg la wala médecin yi tey bu ñu defee seen liggéey ni mu ko waree. Mhm. Dakar bi wàcc. jox la seen ay compromis wala ñu def la ay pig ca dëgg-dëgg mais jaan joo xam ne àdduna wër ngër képp ñoo ci muslu te man pourquoi pas sax nag jaan ji jël benn ruq rek ni du ko génn jël benn koñ ni du ko génn bu màtte kii tey bu subaa mu màtt kële yaa xam laa bëgg xam ko man moom benn góor laa mhm. te pareegu ma de damay seere sama laay dëgg la amagul yow laa koy dénk dañ laa yónni te yàkkam ci la gaawal nga dem ci maam ma nii borom sungu fa grandi ni jox ma sangu ar sama bop man duma tok man duma yondelu te lolu mom soma ko sama xel ngi ci ndax mm. est ce que yéen jaan jooju sax bu ñewé wala yeen rek la soxla est ce bu fekku len man du am ci man yo xana boobaa la may ray ah na jaan ñew di la yow ah Fabrice man may fekk jaan jëf yow da xam lu lay wër man lay wër te lu may wër yow lay wër bu fekkee da lay wër di ma wër de bay bo mu tellement attaquer man mais bis bu dof dofloo ba ne day ñëw ci yow man maay jàpp jaan ji mais ah mais ñii gars yi ma daggate. ah tiim naa ci. jaan tiim naa ci jaan ci. Ah, na jaaxal na ma trop mi ngi not gars yi waaye moom bu bëggee gudd fan na la fi bàyyi. Ah, may di bay boobu bëggee gudd fan. Hmm. ba mu bañ a weeru. Hmm. mu bañ laa laalaal rek. te xam na yow moom benn képp rek dong nga. loolu la sa xel daal <laughs> xaar ma dugg si biir ah. waaw accord ah, damay bëgg am gan léegi dégg nga. waaw baax nga seet. amul benn problème. Ah. lépp di la bégal. yaa ngi gouverneur. bëgg loo dee xel kenn amatul la. yaa ngi guddal fan. amiin waaw yow laa bëgg ak yow tamit. barki wér <laughs> te ñaanal kuréel nag mu wér ak jàmm. incha allah man moom kuréel ma wax dëgg yàlla affaire bi jaaxal na ma trop vraiment. Mm-hmm. jaaxal na ma man daal jaan di wàcc mu xaw ma ko. yàlla baax na ah yéeme na na di jaan di jaan gi di eh, kan eh, iya, nah, dox nah, ah, ya, di mat matul ay gone ki jànq ak yu xam ay ay waxambaan nañ ko seetaat bu baax ta xam ne lii moom du jani kesse ay na waar kumba ma ngi delu sante yalla bu baax bima ko ñaané ci mayma ba sama delu ci wat ci samay loxo lenen ni nak muy delu di sante sant bu baax te di gëm diiru bi kura tëddee ba léegi sa taxawaay ci moom matale na sëpp dama doon ñaan yàlla bis bu ma yàlla maye njaboot yàlla na doon njaboot gu juboo loolee ma doon ñaan yàlla def suñu borom def na ko yéen a bokk ndey ak baay doon ak mag ak rakk waaye da ngeen a dépassé loolu ci yéen ñaa seen xarit saa yu ma dikki fekk leen ngeen toog sama xol day sedd ndax damay xam ne li ma nàmpatal ci yéen yéen a koy jéem a dund. papa dëgguma la sax. Mm. nga loolu. Mm. juboo bi ñu man ak sama mag bi mm-hmm. yow ya ko def si ñun depuis ñuy xale mm-hmm. yow yaa ñu yar yow rek lañ xam mm-hmm. kon nak yow sa jikko rek ñu mëna jël te benen moy place bi mu taxaw bi mu tedd yi su doon man ma fa tedd lu ko raw taxaw kon nak lii dama war kon nak sante yalla rek ndax docteur bi sax wax na ni ñu préparer bagage yi ndax ko di génn xam naa nag euh, leneen li ciy dolli ko mooy ñaanal leen ca lii fi jaaroon ci ndox yàlla na fi gëcc ca daal fii nga teg sa tànk nga la doon gën ko continuer te xam ni nit ki bu ngeen bokkee ndey rek yéen a bokk man mbégte mi muy am mooy su ma dikkee fekk ndax bu la yàlla bindee may la lu dul ñaari bant ñaari bantooy la ci gën rek moo ñu jubóo ca seen yaay liggéey na ci sama kër loo xam si doonte ay jigéen ngeen dégg na ma ne di ngeen barkeel kon góorgóorlu leen bu baax a baax xam naa da ngay préparé bagage yi. bu ko defee ñu préparé dem. docteur Mbaye nag moom ñaam rek laa koy defal. <laughs> <laughs> voilà kon mën nga préparé bagage dama sonn ci yoon bi. jërëjëf maa ngi fi maa ngi ci na sa ah, kër. gis nga gis nga. non non non la. yoon na gis nga ne xale day def yi ko xale. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci bu baax alhamdulilah. am sa góor Mara. Mara nag wàccagul. yaa ah, wàccagul. xanaa woo ma ko woo ma ko ko dinaa ko fekk rek. wàccagul def naa si kanam incha allah. wax nga dëgg wax nga dëgg. a ngi ci jàmm rek. ah maman yow moom dama lay ma toll parce que bu la mara yaayam loo ko wax loolu lay def nga nekk na génne naara te booba léegi ñu bay ci kër gi gis na ni ci jappé bu baax yaay bu baax nga dëgg la mara dama ko jur suma ko wara julé julee bayam nak sey bu rafet yar sama dom xam ko bu baax xam ay qualité xam nga doxu ci dara ci caaxaan kon li ma def mom rek moko war ma dara jappé comme sœur na nga fexe rek ba nii mu la def bu ko rusoo ci benn côté loolu rek laay wax di leen ñaanal nag bu baax a baax. amiin waay yàlla yàlla nangu ñaan. waaye man nag xam naa aw ma toogaay boo gisee ma gëstu sa fan yëpp damaa xaw a tawat gis nga ni mu ci sama sama kii lèvre yi sax gis nga. fan yëpp damaa tëdd. fan yi moom mooy loolu ak tàngaay waaw loolu la loolu la. ak seen mbir yooyu rek. mbiru jaanam ji ko sonal rek. sama doom ji am fu ma demoon nag. jox ma biteel bi nekko nag bum ko xeeb kom yaaw yow laa fekk dama bëgg su nga jox ko ko ni ma ko waxee mu defee ko noonu su xamul li ma ko wax na ma woo téléphone dinaa ko expliquer na ci naan sangu ci wis ci kër gi yépp ba mu tooy nga damaa bëgg jaan ci sori ko sori sama doom loolu laa bëgg lii nag bu ko xeeb dégg nga ma bu baax su fekkee xamul li ma ko wax na ma woo wala ma ñëwal sama bopp defal ko sama bopp. bu ñëwee dinaa ko wax incha allah. comprendre nga baax li ma wax. bi da nga fonk ko nag fonkal ma ko bu baax. dina dina si